yu Dakar Buzz ak mbokk internet yu impro ba tey ñu ngi leen topp li nga xam ne mooy ñaan gi nga xam ne moom la ñuy ñaan suñu wéjur di suñu papa Alaaji Duuba Lees di ñaan yàlla yàlla sera la ya xam tey di bisu ñaan gi nag tombe ak àllarba waaye ñu fekk fi kenn koo xam ne digganteem ak Balla Gaye 2 samedi ak dimanche la bis too ko ci ñu miin ko ci safar yi miin ko ci ginnaaw Balla Gaye muy xaritam mbay lëfër lëfër mbay ginnaaw bi leen yow di la masaw di la jàlli nu bokk ñu bàyyi la nga nuyoo maa ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay wi la yàlla jox di siyaare Medoune Diouf muy nit ku baax di siyaare waa Dakar bés gépp waaw waa impro ñoom itam ñoo leen siyaare waaw li fi indi ñëpp moo ñu fi indi rek mooy sunu wayjur Double Less yàlla na ko yàlla teeru te ko ci aljana ya gën a kawe waaw sunu diggante ak kër gi nag moom ah comme ni nga ko waxee rek Balla sunu xarit la muy nit ku baax koo xam ne lépp loolu mos a xewle ci kër gi muy bànneex muy naxar da ngeen nu fi gis loolu rek moo ñu yëkkati tax ñu jóge Touba ba fii ñëw ci bis bi waaw. ñàkk wee jur métti bala ku ne xam sa diggante moom loo koy dolli ci ni mu war a xale yi ay magam ay rakam lan lay doon. waa ñàkk way jur lu métti la ndax man mii di wax sama way juru góor ñàkk naa ko mais nag ba ko lees doon yar tay moo tax ndax Balla moom borom xool bu rafet la bi fi lees di nekk rek dafa uf njaboot gi kon tey jii nag moo taxoon moo doon ko jàngal loolu boo demee ba gisatu ko nag nga xam ne mooy seen waajur kon na leen gën a jàppale gën leen a teete xam ni yàlla baax na yàlla moom moo fi nekkal ñëpp man ngaa ñàkk jur am na ñoo xam ne dañoo judd xamuñ seen waajur a teewul ñu réussir seen àdduna kon moom itam bu fekkee waajuram teete na leen ba toll fii mu dem a ah ñu gën a góorgóor rek yàlla baax na yàlla yàlla teg loxo ci barkeb Cheikh Modou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf jërëjëf Fadal jërëjëf waaye màggal gi moom ñu koy waaj màggal gi moom xelef xelef ji nag tàmbali na Touba moom lëfër lëfër ji nag a tàmbaleegul lëfër lëfër ji gan ñoo koy def ñoom ñoo koy def waaye xelef xelef ji moom ñun ñoo ngi ci tàmbaleen ko bu yàgg. lan mooy différence su xelef xelef ak mooy mbooloo mu bari raj raj loo loolooy xelef xelef lëfër lëfër nag mooy li sol sol lu rëy di lëfër lëfër yi. loolu mooy xalaf xalaf ak lëfar lëfar yow noonu fas yéenee wàcc safar gi ndax suba la bis safar bu njëkk bi man ma noppi naa moom man moom boye ban safar di tey noppi naa màggal gi moom noppi naa ci guddeewen laay wàcc barkeb Seexul Xaddim guddeewen laay wàcc lépp noppi barki dem sa xarit Balla Gaye 2 ñu wax ni dafa feebar gravement te loolu dara am ci tey boo man message booy wax ci loolu lan lay doon waaw ñi xam ne dañuy liggéey ci wàllum média ñu gën di gëstu information ndax xëy na ñu ko dugal xam nan Balla buñ ko woon laaj ko ni ko lii nan la demee dana leen ci teg wax leen lu leer mais jékki-jékki rek bind léeg nga dugg gis kon bind ne dafa faatu yooyu nan ko bàyyi nan ko bàyyi man xaw ma yàkkam ci nit ku dem la xaw ma nu mu demee noonu loolu nan ko moytandiku amul njëriñ jërëjëf Fadal. jërëjëf mbokk yi kàddu yooyu muy lu am solo ma sof ci rek ni balaa nga dugal information na nga ko gëstu. Balla Gaye sunu nawle la te dara dalu ko mi ngi sant yàlla nan ko ñaanal ak wér comme ni ñu koy ñaanalee ñëpp mais balaa ñu dugal ak information nan ko xool balaa dara dalu ko mi sant bu nan ñaanal wéy juróom mu xippee àjjana mililaay fii niin ak daala yàlla ci si rusandu fii ñeel génnub àdduna mbay sapar sapar doonoon ku ñu ràññee loolu ci tiktok fii ci Sénégal daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ab accident bu mu def ba mbëkk ci ay xale foofee ci diwaanu Daara Jolof jamono ji nag seen ay néew ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu ñu sukkandikoo nag ci suñu ay source nag moom mbay sapar sapar bi mu jëndee oto bi nga xamante ne tey jii moo ko yóbbu Barsàq di ab 406 mu ngi ko jëndoon bu yàggul dara Dakar Buzz di ak ñëpp ci di ko jaale ay bokkam bi ma si tuuti duniyaaka yàllaaw antaara imurasi ajoo bi ramati ay dama a laa ko jaalu we normal effet effet secondaire leen diwlu nu Sador Sador du joxe cholestérol te du la jox benn eh, eh, effet secondaire